waaye moom laa déglu seetaan ko ci YouTube bi teew teewlu ko bu baax a baax mënumaa tudd ma jógaat parce que vraiment am na yoo xam ni bu ko naagu ndaw waxee te naar bu mag ba la ko dénki ndax li ma xaw a jaaxal mooy pourquoi Aly Ngouille Ndiaye dëkk Demba Ndiaye mu génn wax fi def fi déclaration te ba tey tuddul lu jëm ci lii Mary Teuw Niane wax lu dul ñu xëy xëy rek dégg ñu naan préfet jël na décision nee na benn yëm yëm mu amati Dakar loolu yépp li ko waral ñun xam ne ko dama bëgg na ñoom ñu xam ne fii ay bàyyi ma newuñu fi ay nit njaay ñoo fi nekk ñu yor xel di xalaat te ay dof newuñu fi ay nit a fi ne rawatina na ñun muri saadix ak dofu fi ñëw fu ñu yëkkati kàddu jëme ko fi ak lu ñuy bëgg a wax ak lu ñu xalaat rek fekk na nañu xam ne waaye nag yàllaa ñu bindee ñu amub yar amub teggin ba pare nag di déglu suñu kilifa dama bëgg nag moom Mary Teuw Niane xam ne wax dëgg yàlla lii du waxam moom waxu président Macky Sall la parce que président Macky Sall moom moo waxoon ne gaynde guy nelaw la moo ko waxoon ma bëggoon na comme moom moo waxoon ne gaynde guy nelaw la lii bu ko yitteelee na yow waxal ko boppam defal ko boppam déclaration ndax déclaré na fi te waxul loolu feebar bi kenn ku ne xamoon na ne mu ngi fi woon xamoon nañ ne mu ngi fi woon te ni ñu waxee ne noonu la feebar bi wàllee gisoon nañ ko xamoon nañ ko te teewul président Macky Sall defoon déclaration ne nañ dund ak bi jël suñuy matuwaay kon bu ñu bàyyi màggal Tuubaa gi jib ñu war koo waajali am ay programme yoo xam dañ koo war a defi Ndakaaru am ay ndaje yu ñu fa war a defi pour wàcceel màggal Tuubaa gi ñu bëgg a wëlbatikuwaat nag bëgg a bloqué loolu ba ñoo freiné tax ñu wëlbatikuwaat nag di wax ay wax yu kenn xamul naan alerté nañu ay ndaje yi am Ndakaaru yu ma xamul mais plage yi day fees dell ba léegi mais feneen nag feneen ña ngi fay def ay ndaje lan moo tax telewuñ loolu lan lañu signalee Touba ak lan lañ signalee murid yi lan moo xew lu tax ñu koy xëy yàpp waa Touba pour lan pourtant lii de mosu fee am lu waral loolu pourtant ñun de teggiwuñu suñu tànk fañ ko tegoon ma bëgg nag Mary taw Niane moom na delloo si xelam te xam ni ñun dégluwuñu ko du suñu du suñuy taalibe bokkul Touba amu fi kër màggalu fi bu fekkee nag naar bu ndaw lu mu dégg nag te naar bu mag ba la ko la la lu mu wax te naar bu mag ba la ko dégg ñu ngi leen di dégg te ñu leen di xaar li ñuy wax suñ ci ñemee nañ ko déclaré directement wax ko nit ñi xam ko déggu ndax ñun xam nañu màggalu Tuubaa gi la ñuy waajal te moom lañ bëgg a bloqué moom lañ bëgg a annulé ñëpp xam nañ dafa am loo xam ne nit ki kenn warta laal ngëm-ngëmam te waxtu wu ne nag ñu ngi tàppaas waa Tuubaa ak di jéem a laal seen ngëm-ngëm te loolu c'est pas normal dama bëgg na ñu xam ne Tuubaa gi seen maam moomu seeni bàyyi moomu ko Serigne Touba ko moom Serigne Touba sant dëkk bii moo samp dëkk fii moo koy gérer boppam mënuñu ci dara. parce que coronavirus bii ñuy wax boo ko xoolee ba segg ko ba ca biir wax dëgg yàlla Dakar la ëppee et pourtant ña ngay bàyyi ñuy def seen i programme bu yàlla problème feneen ak feneen la ëppee dafa mel ni ñoom seen yéene sax booy xool wax dëgg yàlla nag kenn mënu ko comprendre dama bëgg ñu xam ne fii ci dëkk bi suñ ko la ñuy suturaal ndax dëkk bi borom koy aaral boppam Mary Teuw Niane du moo fiy dogal du moo fiy def du moo fi bind xëy na dafa bëgg a def flèche pour xool ba xam bu nooyee ñu ca kaw daal di appliqué nañ ñu may jàmm nag te bàyyi ñoo suñu ñu nga jënd Sëriñ Touba ñun dañ leen a déglu wut xooluñu leen ci dara ñu Sëriñ Touba la ñuy déglu kii Sëriñ Touba mooy Sëriñ Muntaxa kooku ñun laajuñu ko ndigal tey duñ ko sant dara waaye dañuy dégluñ ndigalam di ko jëfe fii ci Touba loolu laa bëgg ñu xam ma bëgg nag ñu may ñu jàmm tuuti nag te teg xiddeeku tuuti nag waa Touba te teggiku ñu nag ndax ñun ñangi lañu waa muy gëm Serigne Touba ànd ak Serigne Touba te muy dëgg ci ñun kon damaa bëgg ñoom nañu xoolaat li ñuy def bu baax a baax a baax te seetaan li ñuy def te xam ne fii ay bàyyi ma newuñu fi de ay boromi xel fi ne li ñuy nas ak li ñuy waaj ak li ñu bëgg yëpp ñun xam nañ oyofal nañ leen ba mu neex ba mu neex leen nag màggalu Touba jib ñu bëgg a wëlbatiku nag pro indi ay programme yokku ay wax yokk ay taux sonal ñoo ñu sonal ñoo ki wax lu ko waral lu bëgg a fomm màggal nañu may jàmm nañu may jàmm ñun dégluwuñu leen te loolu bu leen na président Macky Sall wax ko ginnaaw moom gaynde guy naan wala moo ko waxoon na yeewu kon wax ko na yeewu wax ko moo gën cuub cuub jeeg capp-capp jeeg wax ji nañu may jàmm loolu daal laa bëggoon ñu def nañu may jàmm tamay na salaam te xam ne fi moom dëkkub Sëriñ Tuubaa la dara la ñu mën a pexe yi nag yàgg na jéem gi yàgg na yàq gi yàgg na ba fi iblis yàgg na waaye mënuñu dara ñoo ngi ci mucc ba tey tey damaa bëgg président Macky Sall wax mu ne maa ngi koy fàttali ne ko siège bi mu toog yàgg yàgg da koy wàcc jox keneen kon na ko rafetal ñii ko wër itam nañu xam ne siège yi ñu toog yàgg yàgg dañ koy wàcc jox ko ñeneen nañ jéem a rafetal xam nañ ñi wër-wër réew bi yeeg coow léegi yépp xam nañ fi ñu jëf mooy bëgg a fomm màggal Tuubaa bi